asalaamaaleykum mbokk yi nuyu naa leen yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam ñu ngi nuyoo fii ci kër ma seen waañ seen feem moo ñëwaat ak yeneen feemam yu bees rek nag ne ci waajaay tabaski bi bu ngeen gisee lii ci photo bi nii nim yànjee nii léegi nag mi ngi ñëw won leen lim leen andil mi ngi leen indil ay collet faar lañ koy wax faari xar yi lañ ñëw andi nii bëgg leen kaa mariner bëgg kaa lakk si fuur bi rek nag pour wan leen ni muy mel ku si nekk tànn sa bu neex parce que li ñuy indi moom macha allah dina bëri dinañ indi ay façon façon léegi lii marine bi ma defaroon la gis ngeen marine bi léegi poobar rek laa si yokk ak tuuti laaju sunguf bi ak xorom euh, ak masikonaar bi dinaa ci def tuuti loolu laa si def daal ci nokkas yi nga xam ne nii wanoon naa leen ko ci laay defee nii léegi nokkas bi moom amutoon benn épice ay kaani salaat ak euh, kaani xeeñ ak xaalapina yooyu moo ci nekkoon ak poora beeg jinjar bi loolu laa si defoon léegi ne gis ngeen ko noonu moom laay mariner nii tey pour wan leen ni muy mel parce que nokkas bu neex la daal mu ne ko nokkas bu neex mu ngi noonu foo ko foo ko kii rek mu dem fa foo ko yónni rek dana la fajal sa soxla bi nga ko yónni incha allah dina ko fa def léegi nag ñu ngi noonu mariner nañ ko ba pare ñu ngi koy def fi ñu ko war a lakkee noonu li ngeen gis noonu bër laa siy def beurre moom lu tax ma koy def ci yàpp bi daf koy nooyal daal daf koy nooyal macha allah foo dompar ak mu ñëw léegi moo tax nag ma ko ci diw noonu nga xam ne damay diw rek ci kaw boo diwee ci kaw rek après bu tàngee rek yëpp dina wàcc dina ko dugg boo ko muuree yëpp dina ko dugg léegi gis ngeen ko noonu muur naa ko ba pare muur bi lu tax ma kii ko pour togg bi gaaw rek moo tax ma koy muur parce que su ma ko dugalee noonu dafay wow ba pare du ñor-ñor bi ma bëgg daal waaye boo ko muuree du mat sax waxtu rek affaire bi ñor gis ngeen ko léegi nii ñor na macha allah mi ngi noonu xetu laaj bi nokkas bi mi ngi gilli macha allah neex na trop léegi nag damay ñëw seet naa ni yëpp normal na. léegi gis ngeen muur bi noonu ni mu ko war affaire bi yëpp mu ngi noonu ñor na daal fu fu ma jëm rek dinaa xam ne lii nii daal li ma si bëgg am naa ko si mi ngi noonu di ñor muur bi moom pour mu gaaw rek moo tax ma koy def léegi nag nii ndox mi dama koy segg ñeex bi nii dama koy segg ñeex bi nag man duma ko tuur ñeex bi nag moom dama koy toggaatee moo tax dama ko xent pour garder ko daal léegi xent naa ko ba pare dama koy dugalaat 30 minutes macha allah gis ngeen ko noonu li ma bëgg am naa ko si affaire bi doore na rafet na macha allah yanji na daal xam naa ne léegi nag maa ngi ñëw pour yekk won leen li ma leen andil mi ngi nii macha allah pare na may naa leen ko yéen ñëpp yéen ñi safoo siñ seen bii nga xam ne mooy seen waañ seen feem rek may naa leen ko mi ngi ànd ak salaatu tabuleem salaat bi moom mi ngi ñëw ci yeneen vidéo yi incha allah di ngeen gis lan lan la am incha allah ñu ngi leen di wax yéen ñëpp yàlla defal ñu jàmm ñu fekkee ko at yu bëri ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal suñ bopp di ñaanal képp ku safoo seen seen bi nga xam ne mooy seen waañ seeni feem rek ñu ngi leen di ñaanal di ñaan yàlla ñu fekkee ko at yu bëree bëri mu ànd ak wér ak tal ak kàttan ak sutura yàlla yéwénal yëpp ci jàmm kon nag ba beneen yoon ak yeneeni feem fii ci seen waañ seeni feem jàngeen jëf